loolu ah waaw bi waxee loolu ndefaat ñu ngi koy nuyu ndefaat dafa ree daan ne dëgg la oh, doy na leen di bu baax a baax do seeg rek gaa yi ne foofu vraiment léegi xam nga booy dañ laa bàyyi tax léegi ngay bàyyi xel bu baax a baax waaw dëgg la mm-hmm. mais nañ bàyyi tooñ nag ay ndaanaan a fa nekk waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mm-hmm. yàlla booy euh, ma jigéen <laughs> kii de lii may teg nii tey dafa commencé bari ci réew mi nag. Hmm. muy cambriolage euh, cambriolé. waaw loolu moom yàgg na fi. non mais fan yi gars yi dañoo jógaat. Hmm. Hmm. waaw am na comme dal sax ku ñu ku ñu jege waaye dañuy comme yóbbu na ko section de recherche ñu ngi koy kii gars yi nee nañ bàyyi noonu bañ pare. mais ba mu fa duggee ci suuf la dugg raafale télé yi. ñuy déete waaye sàcc bi osé yéeg ci kaw. Ah. dugg ci néeg bi nga xam ne néeg booba. ñun buñ masaana dem foofu lañ ñuy dalal maanaam saami biñ kere bi dem ña kii sañ kii bi fa la fa la dugg ah bon néeg boobu bi mu demee wekki télé boobu encore ñu ni déeta waaye mu dugg ci beneen salon bi nekk à gauche wekki télé boobu muy kër gi xanaa ko dafa lu doy waar oh, ñu ni déeta waaye mu dugg ci waañ wi jël bidoo diwlin gi ah loolu mu waaw yóbbu na yóbbu ko ñu ni déeta waay sàcc bi dem jël yére yére sawaay yi muy entraîné yóbbu eh, eh. daal di jël nag euh, boitu caméra surveillance bi bi mu jàpp ni ca la mhm. bagage yi ne. mu dagg ko yóbbaale xamul ni bois di ñaar la. kooku xam kër gi la. waaw bois di ñaar mm. léegi ñu dem déglu kii te. ku xam kër gi la. Euh, Pape Mbaye Gaye euh, PDG Holding Gaye bon aux alentours de 9 heures suñu benn employé daf ma woo euh, du moins sama sama benn collègue directrice su Holding Gaye elle m'a expliqué que dañ ñu cambriolé donc à cet instant si laa jógee ñëw. ma constaté que carrément dañu cambrioler yóbbu suñu ordinateur yëpp presque. bon bien sûr parce que déjà euh, cambrioleur bi mu ñëwee dafa dafa dajji fii nii donc euh, dajji fii donc yëpp dañ ko sécuriser woon dugg ci biir donc li mu yóbbu machine yu mu gën a yóbbu mooy machine yu gën a cher daanaka ay MacBook Air ay MacBook Retina donc boo xoolee yooyu la yóbbu te machine aussi am na yoo xam dafa ñëw en réparation ay machine yu jàmbur yooyu yëpp yóbbu nañ ko c'est à coût des dizaines de millions oui bon en quelque sorte bon ñu ngi gis ne état moom munul def lépp c'est vrai que mi ngi def le maximum ak état bu bees bi donc ñun ñëpp am nañ ci benn espoir mais sécurité bi aussi dafa des parce que quartier mel ni Sacré-Cœur 3 fii c'est pas très fréquent nga fi gis yenn affaires yi mais cette fois-ci moom bon c'est c'est désolant vraiment ñi ngi ñaan dimbal aussi état bi ñu gis na ñun li ñu bëgg mooy ay jeunes entrepreneurs lañ tàllaluñ suñu loxo état pour ñu jox ñu dara mais pour au moins ñu accompagner ñu parce que c'est une entreprise qui paye tout ki qu'il doit à l'état ou bien euh, muy tout ce qui est impôt taxe tout ça holding gars yi la carrément donc loolu rek la ñuy xaar ci état accompagnement bon entrepreneuriat dafa metti te ñun entreprise bu jeune lañ bi ñu doog a lancé à moins de cent cinquante mille francs donc bu ñu demee ba taxawal entreprise bu toll nii tout récemment mois passé lancé nañ benn succursale à Touba te ay jeune rek ñoo fiy liggéey ay doomu réew mi wala ay doomu réew mi ak doomu bitim réew su ma nee bitim réew ci Afrique ba tey ñun ñëpp benn lañ donc tey entrepreneuriat dafa metti lu jeune entrepreneur yi dañ leen a war a jàppale ñu mel ni man ak samay morom parce que dañuy gis cas lu bëri fii nii c'est vrai que nag li nga war a def lépp ci sécurité danga koy def mais beneen côté banditisme yi tey bu nekkee ñii di liggéey fii ñii di wër pour cambrioler loolu c'est un mais dañ koy constater que c'est la volonté divine mi ngi noonu ma jigéen euh, ñoom ay jeune entrepreneur la ñu xam naa yi war na ko su ma waxee ndax dina fàttaliku ñoom ñoo ñëwoon solution bu yàggul bëggoon liggéey ñun nekk ay partenaire ci wàllum euh, électronique ci la ñuy yëngu mmh. ñoom lañ kàmbru yële ñu ngi leen di nuyu di ma masawu bàcc mooy borom kaay jënd bu Touba ma jigéen mu mel ni daal lu commencé waat di xew ci dëkk bi la ba daal léegi gaa ñi ku ci am sax sa yenn place yi bu fa matériel yu baax nekkee booy wàcc da ngay jël yóbbaale sinon gars yi mën nañ laa cambriolé te duñ ci dara nag nag fit woowu ñu am jaaxal na ma xay na ak état bu bees bi dinañ ci jël ay matuwaay bala am gàm bi am nga xam ni kenn ñimewu faa defu ñaawteef ndax yaayaa sévère gi mu sévéroon waaw waaw ma yi bu c'est man li ma jaaxal en général ñiy def yi ni mel euh, dañuy dañ koy yàgg préparé parce que kii ni nga ma expliqué sànq ni noonu la defee affaire bi ba dugg xool li nekk ci caméra de surveillance yaakaar ni mhm. moom élément boobu bu ko jëloon doonul woon feeñ mën na nekk ku fa xam wala ku leen xam wala ku fa jaar sa ba jóge fa mhm. parce que saay-saay moom yore na fi doxin wu ne mhm. waaw nit mën na ñëw solo kosam dikk nga foog ni li ko intéressé mooy liggéey wala ñëw pour li ngeen di def. bu mm. dee jàpp na ne soxal na ko mu ñëw rien que pour observer lieux yi. xool mm. fan ak fan la mën a jaar après nag mu ginnaawu la ñëw def jëf ju ñaaw jooju foog ne dina si génn te man souvent dañuy wax ne dañuy teg ay civil ci bunt bi. Mm-hmm. man civil yooyu man ban ban njëriñ lañu amal même su ñëwee armé wu. yow am na ñu fi yeew nga daaw boo ah. am bi ñuy comme doo commencé jomet mm-hmm. am na benn euh, élément bu ñu fi noonu dañoo yeew waa ji ba mu dëgër. Mm-hmm. daal di dugg li ñuy def génnaat. en tout cas doy na waar. doy mais vu am nañ beneen bu mën a permettre ñu ñu gis waa ji. nañ ko yóbbu rek si yoon du ñàkk dina am suivi allah. Ndiogou. waaw loolu de wax dëgg fa yàlla. Hmm. léeg-léeg euh, ñu bari ñuy def sàcc kër. sàcc ci hmm. kii. Hmm. boo ko seetee ñuy maîtriser. kër ga lañ. la. wala ñuy maîtriser. dañ koy dañ koy xam de. dañuy xam yëf yi ni mu demee. ak lu fi ne xam calendrier bi. Mm-hmm. xam lépp. Mm. moo tax euh, pareen saa yi. Mm. nit. Mm-hmm. ñi ngay jéem a. waaw ba daam kuy daaj jeeti. kuy daaj <laughs> xaaral ma xool waxal. ñu ngi ba doon am kuy teel teel daaj. ak lu muy liggéey lan la. Hmm? waaw sooy boo nga dem di xool kooku daaj ji di daaj ji <laughs> non journaliste yi la ah daa bëgg ubbi buntu bi mu mu mu kii mu bloqué buntu rédaction bi ah. rédaction yi buntu ba bloqué waaw waaw buntu bloqué moom baax na waaw waaw <laughs> nga ni yéen ku koy def day fekk mu xam ko ah, léegi non day fekk par exemple saa yu maîtriser kii boo defee ne gars yi du ñu maîtriser terrain bi am na ñoo xamante ne bi buñ ñëwee mm. ñi ngi xool fu ñuy jaaraat pour bu ñuy dugg ci kër geeg nu ñuy def ak yooyu waaw. waaw ñoom dañoo dañoo croisé ca biir. ñoom dañuy fëgg wala. dañuy fëgg dañoo bloqué ca biir xam na ñoom ñoom waaw mais wax dëgg yàlla. ah ña <laughs> sa jaxate la. non du aysa de non du aysa de. Ah, sa yaay nag moom wax dëgg fa yàlla. bàyyi sa yaay alaaji yow alaaji sa yow alaaji sama yaay ji xam nga du la lebal dara. te ngaa bàyyi jàmbur. <laughs> waaw mais ah, ak ñoo bëri wax dégg nga waa lii lan la waaw. bété gi noonu. macha allah. Eh. kon alaaji état bi kon alaaji ñi ngi ñaan état bi. jël ay ay matuwaay ci yu mel bari ngeen coow tor béti. a ngi mel ni du ngeen liggéey ci télé yéen comme du ngeen ay. waaw ngeen dem ndànk leneen ñu professionnel yéen da ngeen mel ni yéen nu ngeen def ba liggéey ci rajo ak jaaxal na ma yéen nu ngeen def ba liggéey ci rajo ak télé yéen